sëriñ Basiiru baaray maamam sëriñ Basiiru baaray maamam baay sëriñ Bas yow la yaakaar fii asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki njabootu sëriñ Tuubaa yi waaye mbokku taalibe xam naa bu nee njaboot Serigne Touba yi duñ génne seen bopp ci taalibe yi waaye ñu duñ leen ci dugal moo tax ñu leen di joxaat seen wàccuwaay di leen nuyu te di leen ziyaara ci jotaay bu am solo bii nga xam ne dafa bokk ci jotaay lislaam yi jotaay bii nga xam ne dafa bokk ci jotaay yi nga xam ne dañu fiy jëfe li nga xam ne bokk na ci ndigalu lislaam yi muy dimbalante ci biir mbokk waaye àndante waaye kóllërante waaye dëgërante ci biiruk mbokk ndax jotaay bi ñu nekk ci pakk bi ñu nekk di Touba waaye nag fii ci guy mbind ana kan lan fi fekk si ana kan moo fi woote gayndek baara muy kan Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke moom sëriñ Xaadim Mbacke xawa ba moom Cheikh Mouhamad Amin moom Cheikhul Xadim bu ñu ko waxee gayndek baara nag muy sëtu Cheikh Mouhamad Amin baara ak njàmbaaram ak taxawaayam ci maamam Cheikh Mouhamad Amin baara moo ko waral kon moom Cheikh Mouhamadou bashir mu Sëriñ Xaadim Mbàkke Awa Ba mi ngi ko amee bii di guy mbind njaboot Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gépp dañuy bañ a tudd kenn di bàyyi kenn waaye ñoom ñëpp ñu ngi nii teew àndanteeg Serigne Bassirou ci lii nga xamante ni ay teraanga yoo xam ne jëf la joo xamante ni mi ngi koy def te fii la gën a safee fii la ko gën a bëggee muy dund bii ñu gis muy ndimbal ci weeru koor wii nga xamante ni weeru ndimbal la weeru lépp la muy jàppale ñi nga xamante ni ñooy mbokki guy mbindi ak li ko war rawat na ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi alquran yi te képp ku wax Serigne Bassirou ko mën a waxal tamit wax ni xam ne tamit liggéeykatub alquran karim la ndax gis na alquran bismillahi rrahmani rrahim إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yu tedd yi ñuy seetaan ak fu ngeen ma nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen nuyoo ci pàkk bu tedd bii di guy mbind ci teewaayu kilifa yu baax yu tedd yi nga xam ne ñoo fi daje ci kër Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Sëriñ Xaadim Mbàkke moom soxna Awa Ba moom Sëriñ Baara ñu daje fi nag ci ni niñ ko baaxoo woon a daje at mu nekk muy jël ay ndimbal yoo xam da koy jël di ko jëmale ci mbokki jullit yi bokki taalibe yi waaye rawatina ñi nga xam ne dañuy yëngu ci alquran te yàlla dogal at mu nekk muy sàkku ñu teew fi teewal leen fi lam ciy joxe mu koy teg suñu loxo ñu koy jottali mboolem mbokki daara yi kon nag dellusiwaat na nam ko baaxoo woon a defee ñu koy sant bu baax ndi ko gërëm di ko santaat di ko gërëmaat sax la ñuy wax ndax nii mu ko defee yàgg na ko at mu nekk sëriñ bi kon mbokki sëriñ daara yëpp ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay wax ne sa jëf ci ñoom agsi na sa yéene ci ñoom agsi na ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala ci barke alxuraan yal na yàlla guddal saw fan lool yal na yàlla dolli sa wér yal na yàlla kàttanal te musal la ba mboolem mébét ak nisir ak naal ak yéene yi nga xam ne am ko yëpp nga liggéey lislaam waaye rawatina ci toolub alxuraan ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala yal na nga mottali sa yéen yëpp ànd ko sa bokk yu baax yëpp taxawaay yi nga xam ne yaa ngi koy taxaw ci daara yi gis nañ ko bu baax a baax li nga xam ne mënuñ koo ñàkk te buñ ko amee mën a jëf jëm ci liggéey bu baax a baax gis nañ fi nga ñu ci féete kon mbokk suñ daara yëpp ci njiitu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo jiite xaliya bi nga xam ne mooy xaliya guy mbind aju ci raabita bi nga xam ne moo daara yëpp waxtu nekk saa liggéey bi sottee danaa koo ko defee mu jokkale maag mboolem sëñ daara yi ñu fexe a am kon nag liggéey bi agsi na mënuñ nag lu dul ñaanal la xanaa di profité man tamit di la santaat baax ndax na daaw la ma woon dama la yóbbu màkka na ma ko waxee dem nañ ba ñëw yàlla tax ñu ngi door boobaag léegi ñu ngi door tegantewaat bët sëriñ ci moo ko indil bi lay ci xam naa bala nga dimbali ma jox la ndax wax dëgg yàlla suñu yéene rëy na ci yow lool lu dul nag lañ jële màkk teg ko sa nga xam ne sëñ bi suñu sedd na ci yow jëfal nga ñu fa jëf ju rëy sëñ Baar laa yaakaar na bu bu waxee ñëpp da xam ne sa jëf rëy na yàlla na la fay sëriñ bi yàlla na la fay yàlla na gudd fan lool te ànd ak wér barkeem asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare ci weeru tedd yu ñu nekk te di leen ci ndokkel bu baax di leen ci baalu ak ci ñaan te di leen baal àq ci jaan yàlla suñu borom booru jéggal suñuy bàkkaar di nuyu sëriñ Basiiru mu sëriñ Xaadi Awa Ba ba ñu ko nuyoo nuyoo boobu dañ koy teg ci loxoom mu jotal ñu ko mboolem ku nekk ci jotaay bi. ma teew fi ci jubmi jumaay Tuubaa yàlla sunu borom dafa dogal sëriñ Basiiru am relation bu am solo boo xam da ko am ak waa jumaay Tuubaa ba tax na ñaari koor gi dana am ñaari jëf yoo xam ne benn bu ci nekk da kay jëf te yëpp jëm ci jumaa ja saa bu ñu umee koor nii dana mu woo mu ñëw mu am lu mu yëkkati jox ko waa daari kamil looloo tax ma ñëw tey jii ànd ak ba bay fay mais nga xam ne lépp lu ñu toppatoo ci waa daari kamil ñoom moo leen koy taxul li leen ko séddale ba napp sëñ bés defaat ci ak mat dama laa ñaata lañ ni mu ko defe woon daaw daaw jéeg ma ne ko ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ñoo ñoo jàng kaamil bi man waaw ak këleen di toppatoo ak këleen di yóbbu muy fanweer loolu jëf la joo xam ne boo jëfee noonu ña ngay jox loolu ñu jox dañ leen noppal kon nag sëñ Bass ni ñu la sant woon daaw ci turu waa daari kaamil ji ñu fi teewal ci turu waa jumaay Tuubaa ji ñu fi teewal ndax lu kenn defal kenn ci jumaay Tuubaa rek ñun jàpp nañ ñu daayira Moukhaddamatoul Khidma jàpp na ñoo ngi ko defal ndax la ñu fa bàyyi mooy sàmm leen ci seen condition yu baax kon nag loo ci defal ñenn ñoo ngi ko defal ci nii nga ko defe woon tamit at yi wees yëpp te bu dikkee waxtu nekk fi muy ñëw ña nga ñoom fa mu jëm dañu fekk ñuy téwoo ko moo tax ñu ngi lay jot li cant waa daari kaamil bu baax ak seen i ñaan di la xamal ne seen xol sedd na bu baax ndax da ngay jëf te ñoom sax bari na ci ñoo xam duñu la teg bët say waaye sa jëf ñoom ñu ngi koy teg waxtu nekk waaye da nga xamal ne suñ tubaab mi tax ngay jëf gis na la yàlla na la yàlla fay lo ko sa njort yëmul loolu tamit waa daayira mu xadamatu xidma tamit moom ak ñoom relation boo xam ne saa bu ñu eggee ci mujj koor ga dana Euh, ànd nañu ndog yi andi ay xéwal yoo xam ne ci daayira Moukhaddamatoul Khidma la ko jëmee kon sëñ Bass digganteem ak jumaa ji digganteem ak daayira Moukhaddamatoul Khidma ak lépp laa ci jumaa ji diggante bu rafet la bu yaatu la waaye yëmut foofu da daayira bi loolu mooy li ngeen di gis sëñ Bass di ko def ci jumaa ji ak ci daayira Moukhaddamatoul Khidma waaye am na jëf yoo xam ne ñun ñu ko jëf rek ñoo koy xam da laa ñu jox benn exemple gàmmu gi weesu dañoo réunion ba gis ne nawet la ñu nekk mënuñoo gàmm ci biti ndax bu tawee nu ñuy def ñu ne dañoo war a fexe ba am bâche mag yi ñu toog di xalaat xel yi dañuy def nañ jokkoo sëñ bas dañ ko wax mu may tuuti biñ biñ biñ biñ mu mayee tuuti da daal di woo ab xaritam yaakaar naa Moussa Sow la Sow mu luyee baas boo xam ne ba mu dikkee nañ ko bëggoon noonu la mel mu dolliwaat ci bañ demee ba ci biir ñu ne jumaa ji da baaxoon na ndax ñu lu koy tóoj ba bu tawee du yàqu du yàq nit ñi seenum jàng yàlla dogal na mu daal kooka ne na lépp mat noonu lañ def ba nit guddi gàmmu li taw bi bari bari bari yàqul lañ doon gàmm ci biir jumaay Tuubaa te moom mi moo ko def ak comme ko ko doon jëf ndax ci moom ñun ci moom lañ jaaroon rek mu di jënd comme ko def kon cant gi day dem ci moom jaar ci moom jàll ci ko ko jëf yàlla dogal nag ba taw biy sóobu tàmbali kam def na woon baas ba fekk ko ci baas kan nga xam ne jëf ji suñu Tuubaa nangu rek mooy loolu nga xam ne ba nit ñi wax sax moom daa gaaw yolli ko daal dem yoonam ngeen bañ nit ñi xam ne moo ko fa def waaye mi dem sa xaal la demee kon sëñ bas yëwut foofu yeneen ak yeneen yeneen yoo xam ne bu dóor a yittee daayira bi bu duggee noppam da cee taxaw ñu ngi sant yàlla bu baax tey julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam tey ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak mboolem njabootu Cheikh Khadim gépp ak mboolem kilifa diine yëpp di sant bu baax eh, kilifa yi nga xam ne ñoom lañu fi fekk ñoo ñëpp di suñu kilifa sant bu baax eh, sëñ Basiru mu sëñ Xaadim Awa Ba ci jëf yi nga xam ne ni moo ngi koy jëf ci jamono ju nekk rawatina ci weeru tedd wi te muy weer woo xam ne nii lépp lu waaye soxlawoo ci ngërëmul yàlla wala xéewal ci weer wi moo gën moo mooy weer wi nga xam ne ma des na ko cee sàkkoo ama siyaamu foo mi afdalima tarabta mardatan bihi wa nihama loolu waxi sëriñ bi la mu mu defaat ko tamit ci dëkk bi nga xam ne nii dëkk yëpp defee fa lu baax baax na waaye dégg naa ci sëñ Moussa am sëñ Abdul Xaadir mu ne sëñ sëñ Modou Moussa mas naa wax ne mas naa wax sëñ Abdul Xaadir ne ko koor de fépp la baaxee waaye Tuuba Tuuba sa la sakkane kon jëf yu baax yëpp tamit fu ne fu ne lu baax fu ne la baaxee waaye Tuuba la gën a sakkane kon jamono ju nekk sëñ Bass yoon koy wax comme ni ko sëñ Abdou Lahad waxee jamono ju nekk mi ngi koy jëf ci jëf yoo xam ne ni ñu bëri gisuñu ko ak jëf yoo xam ne nit ñi dañ ci teg seen bët nit ñi nag ñaare boo jëfee dara fan ñuy natt mbir mi mooy mënoon na lu ko raw waaye li ci am solo rek mooy am na ñu man lu ko raw fuuf te ñoom defuñu kon ki koy ki koy def mën naa sant mën naa ñaanal mu gën ko mën te tamit fi mu koy def bari na ñun tamit mën naa mën nañ ci ay seere lu waral suñ jotaay fii nag ñëw nañ fi ngir ñaar ngir ñaar ñëw nañ fi ngir sëñ Basiiru suñu digganteek moom ndax suñu wóllër la suñu mag la suñu kilifa la waaye ñëw nañ fi tamit ci turu Touba Kanam ci ci turu sëñ Abibu ak mboolem ñun bokkal liggéey ba ci jàpp gu muy jàpp ca ca liggéey ba liggéey Touba Ca Kanam diñu mel ne général mi ngi ciy jàpp ci ay xalaatam ci ay jëfam mën naa cee nettali boo xam ne nii du man doñ di ko nettali ndax lu baax la ginnaaw lu bon moom bu ko nit defee ñu mën ko siiwal nit bu defee lu baax tamit siiwal ko da ciy baax ndax fa fa fa ñu bëgg lu bon àgg lu baax la tamit nga àgg nga àggale ko fa yow tamit muy bi ñuy defar opération defar yoon wi muy assainissement bi Touba ci kanam doon def ci dëkk bi bi ma ñëwee fii wax ko sëñ sëñ Abdul Xaadir mii mu sëñ Modou Maxtaar fekk na ko fi daa daal di génne lu am solo ci turu boppam waaye yëmu ca daa daal di jël engagement ci ñeneen ñoo xam ne nii mën na ci ñoom dara ku ci nekk mu mu mu ne joxel naa ko lim te ku ci nekk gën ngaa néew 10 millions leen joxeel mu dem ci dëkk bi te muy doon ay yoon yoo xam ne ñëpp koy jariñoo doonul mbirum kenn loolu dana baax yu mel ni ñu ko ciy wax lii ñuy dénk ni ci Touba ci kanam nga xam ne ñu bëri jàpp nañ ne moo li Touba ci kanam di def muy ñaar téeméer yi ñu dajale te bokkut lii ab jaayante la boo xam ne ñin ko dénk ñooy jéem a def seeni effort ngeen mën a dajale luñ mën a dimbalee nit ñi ba jamono ji ci la nekk daanaka liñ jàppale ci nit ëpp na ñetti junni nit ak topp ak ci idaare kaamil yu ñu mel waaye moom mii tamit ci ñi ñuy jàppale ci suuf ci la bokk lii ñuy def rek benn la ci ndax démb bi muy jokkoog man te fan yëpp ñu ngi jokkoo sax mu di ma mu di ma kii am am na lu ma koy wax maama loolu moom dama ciy taxaw léegi te fekk na boobu moom jëfi boppam mi ngi doon ñëw kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko di ko jaajëfal bu baax te yemut ci loolu bari na ay mbir yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi koy seq ci loo xam ne ni njariñul dëkk bi la du sama njariñ man du njariñul keneen waaye njariñul dëkk bi askan wi yëpp ñoo ci jariñu te mu ciy def lu lu ama solo am solo ci ci suuf loo xam ne kenn yëgu kon daal ñu ngi sant sëñ sëñ Basiru eh, bu baax di ko ñaanal ci jëf yi muy def te di ci dàkk ngërëmul Cheikh Mamadou Lamine Bara di ko defee ci mpéncam yàlla na ci dëppoo ngërëmam ak tawfeexam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah di kàddu yooyu tamit amaat na solo seeda yi tamit gën naa rëyati muy waa Touba ca kanam kon jërëjëf eh, Cheikh Mahamadou Murtada léegi ñu jox nag euh, sëriñ Abdoul Aziz moom sëriñ Ahmed mu Cheikh Mouhamad Lamine moom itam mu yëkkati kaddu ci turu kuy mbind gii nga xam ne lépp lu Cheikh Mouhamad ba ci def rek mi ngi koy def ci turu Cheikh Mouhamad Lamine Baara ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Mouhamadul Amine Baara Mbacke ak ci turu kilifaam Cheikh Mouhamadul Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifa guy mbind di kilifaam ñaari kër yi ci turu Cheikh Mouhamadul Basir mi ñi ngi nuyu bokk yëpp di sant bokk yi yëpp nag waaye ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha ak njabootu guy mbind gépp ak njabootu daar Xuddoos gépp ñu ngi dellu si waat di sant Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Khadim aw Ba moom Cheikh Mouhamadou Lamine ci jëf ju màgg ju tedd ju baax ji mu jëf ndax ni ko baaxee am mu je mu je ay xéewal di ko jagleel daara yi kenn ku nekk xam na ne ku teral sëriñub daara teral nga alxuraan ca ku teral alquran teral nga waxi borom bi subhanahu wa taala ku teral alquran teral nga yonent bi alayhi salatu wasalaam moom miñ ko wàccee ci kawam waaye ku teral alquran it teral nga Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo ko leeralaat ndax mooy kii yeesal yonentu yonent bi sallallahu alayhi kon Sëriñ Basiru ci suru turu Cheikh Mouhamadul Moustapha ci turu kilifaam sëriñ Ahmadul Moxtaar ak njabootu ñaari kër yëpp ñu ngi lay sant bu baax ci sa jëf ju ji ju tedd ju màgg ji ndax jëf rëy na ci àggul fii jëf baax na ci àggul fii ndax ci ñu ngi ko jëfal ak ki tax nga jëf ko ki nga ko jëfal mooy alxuraan ki tax nga jëf ko mooy sëriñ Tuubaa rekk ca sunu borom bi kat dafay wax ne wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah ne la wóor ne jëf ji day jëf la joo xam ne du sànku jëf la ju ñu la dencal ce jëf la joo xam ne bu ëllëgee ka nga ko doon defal ki tax nga ko doon def ak ñu ko doon def danañ la seede bu ëllëgee te buñ la seedee sëriñ bi da nga sant yàlla bu baax baax la kon ñi ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla may wér ak tala kattan ni nga ko defee daaw def ko daawaatee def ko ren nga def ko at yu baree baree bare ñu ànd ko ak yow nga ànd ko ak sa kilifa yu baax yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu fas yéene jox kàddu gi nag euh, sëñ Xaadi Jaxate mi nga xamante ni moo nekk ci rabitatu madasul quran bi nga xam ne moo lëkkale moo leen jàngalekatu al quran euh, ci dëkk bi ak li ko wër ndax rabita bi yaatu na lool ñu jóg yëkkati ay kàddu incha allah rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci weeru tedd wi ci barab tedd bi di leen balu xaq leen balaq di ñaan suñu borom mu boole ñu baal eh, ci teewee jataay bii nga xam ne yàgg nañu ko teewe muy jataay bu am solo eh, sëriñ bi wax na ko léegi eh, solos jataay bi ku ci indiwutoon lu dul benn aaya boobu mu tudd maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu indallah dana ci doy sëkk seede eh, jëf ju baax baax na ci waxtu wu nekk waaye lekk-lekk arab dafay wax sarfu samaan ak sarful makaan waxtu wiñ ko jëfee wala barab biñ ko jëfee daf koy yokk kon ñu jëfe ko ci Tuubaa jëfe ko ci weeru koor te jëmale ko ci njabootuk sëriñ bi ñi koy liggéeyal nga xam ne tey daanaka li ëpp ci kuus yi nekk ci dëkk bi di yëngatu ci li nga xam ne moom la sëriñ bi gënoon a yittewoo tàmbalee ci daara yi ci jumaa yi ci nangam ci nangam nga xam ne dafa mel ne eh, service su dëkk bi wala service su sëriñ bi ñi ko ci nekkal eh, wet gu nekk mu di ca bàyyi xel loolu jëf ju am solo la joo xam ne ku ne xam na ne sëriñ bi la koy defal yàlla na ko suñ borom nangu amees na ci yaakaar bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. ñu ngi nuyu mbooleem mbokk ci tàngoor bi di nuyu suñu kilifa ñu fekk waa Muxaddamatul Xidma mm-hmm. waa Tuubaa ci kanam suñu ak baaraam yu tegu bis bii nag dafay bis boo xam ne day bis bu am solo moo tax euh, waxtu wi suñ bas wooyee rek dañ ci ànd ak mbégte ndax lu ñu seq ak moom te itam ci mel ni ndongo nag la ñuy wasaa su euh, te li muy def nii da koy defal Serigne Touba du ko defal Serigne Bara ndax boo xoolee ñi mu tànn rek foog naa sëñ bi dëkk bi jàngale moo taxoon sañ alxuraan waa daal yi ñu ngi nii toog ci jiite daara ngi nii ñu ngi nii toog jël waa Touba ci kanam ñoom itam gis liggéey bu ne ñu ngi koy liggéey leen bon leen waa mu xàddimat na ñoom la suñ Touba gën a ñoom ñoo ko yóbbu jumaa ji kon suñ bi xool yi nga tànn rek dana mën a natt sa sa pas-pas ak sa jublu ak lii li nga ci bëgg ndax day mel ni ñi nga ñi nga day ndar képp leen day mel ni yoonu mur yëpp teew na ci tey ndax ñoom ñi mën nañu représenté yoonu mur kenn ku nekk da ko def si mën taxaan a def kon loolu foog naa ne mbir mbir mu rëy la nga di ko def di ko defal sëriñ ci wax waaye nga koy def di ko si maam wax nañ ko fi léegi ni nga mel ci suñ baara kenn ku nekk ñun mën na ko seere bis bi nga koy defal ndaxaar pëstif rek moo ko la ak bëgg wane suñ baara ci anam gi nga xam ne noonu la mel mboolu adduna sëpp man cee jëriñu ndax ba mu fi jógee yàgg na booba ñi judd woon sax léegi am nañ juróom-ñett fukki ak ak du topp kon boo jëkk ba na nga koy wane di ko ay xar baaxam ak mbaaxam aw meloom ay jikkoom ngir Sénégal gépp man cee roy loolu foog naan lu am solo la te loolu moom itam lay wane am solo gam am solo mooy tey ji ñëpp ñu ngi la ci roy koo fi dégg mën a journée culturelle rek maam deuxième lay daw ndax yàgg njëkk def te réussite bi nga ci am itam foog naa du yomb keneen am ko ci loolu nag li la ko may mooy sa mooy sa yitte sa yitte yitte en tant activité waaye sa yitte aussi ci nit ñi sa demlante sa joxlante loolu maa ngi la ko wax biig rek eh, sëñ Bass doo dem fenn ci aw xew te fekkoo ko te borom xew boo ko laajee da ngay da ngay dégg ma sëñ Bass ñëw na waaye tim ñëw na ko ñaari yoon loolu yow yow foog naa xam nga leen ma bëgg a wax <laughs> ndax ci yéen la dëkk <laughs> kon kon kon sëñ bi loolu dafa dafa dafa dañ ko tàmm nii rek waaye nekkul lu lu yomb ndax ñu ko man bëriwul ñu ko def bëriwul ñu ko ñu am bari nañu ko man tam ñoo xam ne suñu borom joxu leen xol buñ ko defee kon nag loolu xañ na ak jagle la boo xamante ne bii sama moo la ci liggéeyloo ci dajale mbokk yi ci ci ci eh, ci defar diggante yi loolu te ab cër gënu ko kawe kon day mel ne loolu ñun ñëpp danga nga ñu cee da nga ñu kon daal nga xam ne bis bi bis bu rëy la ci yow ndax ni nga fonke daara ni nga fonke alxuraan ni nga fonke jàmbaar yi liggéeyal Serigne Touba waaye bés la boo xam ne ñun ñi nga xam ne say say waay la ñun ñëpp itam bis la bu ñuy tiitaroo ndax waxtu wu nekk ci lu baax rek la leen gis lu baax la leen dégg lu baax la leen seen te loolu ci ci mooy li nga xam ne moom lañu séntu ci yow kon mosoo ñu rus ba benn yoon kon nag sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm di la bàyyi ak sa maam di la ñaanal yàlla lu baax loolu ngay def lépp itam suñu borom nangu ko te fulal la ko loo xam ne dana kawe suñu jox kon ñu ngi del di sant waat mboolem mbokk ci yëpp nag dina xamal ne suñu xol seet na ñun ñëpp ñaan yàlla aussi dajawaat ci déwén ba defaat ko ni ñu ko daan defee at mu nekk sama kàddu mbaaxam lii ñuy def Serigne Sidi Abdou Aziz mooy ki nga xam ni chaque année moo daan ñëw moog Cheikh Abdou mi présidé ko yàlla dogal bi ma koy woo démb fekk ko mu àgg Ndakaaru naroon naa ñëw yàlla sedd na ko ba ci suba rek woo na ma insisté pour ñëw mën ko dee ëpp naa def bu fi sëñ Aziz amee nekkee ak sëñ Bas mi ak sëñ Alaaji ak sëñ Modou Aïssa Amar Fall ak sëñ Abdoulaye Gaynde Fall mu mat la sëkk mm-hmm. di sant mbokk yi di leen gërëm ay mbokk lii rek la sëñ Abdou Lahad mi dem une heure du matin laa ko jot téléphone wallaahi naa suñu yàlla seet na une heure dem ci guddi mu wax mu dagg ñu jotantuwaat deux heures et quelques ci laa koy doog wax te dama ko waxee dane man lu ma mënoon jàpp dinaa ci loolu mooy ak mbokk mbokk amul dama ko yeex a wax ak ay diw ma ko jot lekk ay mbokk war ñoo doxe noonu mm-hmm. ay mbokk ni ñu war a doxe rek mooy bañ nekk Euh, bañ nekk ñoo xam ni dañ naan yéguma ko diw yëgaluma ko wala dama ko yeex a wax wala na ma ko wax a baaxul walla lëmi na ma ko wax ba ko war a ñoo doxe noonu te gis naa ni sama mbokk yi doxe mm-hmm. ñoom ñu mu bokkal Sëriñ Baara bokkal ñu mu Sëriñ Tuubaa bas am na nii mm-hmm. biig laa ko wax deux heures du matin moom mm-hmm. suñu am na nii kazaalika na noonu nga xam ne ñooñu da ngay ñoom ba nga xam ni looy def da nga leen di sóoraale da nga xam ne à tout moment waxtu boo leen ko waxee mu fekk leen Touba danañ ñëw bu fekkee Dakar la boo leen ko waxee ñu ñëw sëñ Abdou Lahad bu samee ci suba lañuy jox ko mën a yow ci suba laa ko wax bage ñu kenn suñ motulaa mooy ak bokk kon sëñ Abdou Lahad ñu ngi lay sant ñu la gërëm yow nit ku baax sa làmmiñ wii dama koy wax masuma dégg nga lor ci wax ci nit lu ñaaw te al muslimu man salima al muslimuna na lisaanihi wa yadihi mhm. julli dëgg dëgg mooy ki nga xam julli ni mucc nañ ci ay làmmiñam mucc nañ ci ay loxo mhm. yow doo lor kenn ci saw làmmiñ doo kenn ci say loxo loolu jikkoo la yoo xam ni ñun naw nañ la mhm. moo tax yow suñu xarit lépp luñ nekk ci àddina li fekk ñu ngi dund di ko man lépp luñ nekk ci àddina buñ ko jiital kenn defal ndax say jikko sa mbaax sa yaatu ñëw bi ñëw fekk ko nga dem ma waat am nañu xam bu doon ñoom bu ñëwee dañ naan ñëw naa benn yoon bu ñu waatee du te yooyu jikko la yoo xam ne jikko yu am solo la kon mbakk mbokk yi nga bokkal guy mun it maa ngi leen di sant bu baax ñu samay doom di sama mag yi di sëñ Basiir Ahmed sëñ Alaaji sëñ Mour Aysa suñu rak si Mbàkke imam leen sant baax sëñ Mourtala Malick wax dëgg yàlla nit ku baax la koo xam ni liñ bëgg li ñu waroon def lépp moo ñu koy defal moo ñu nekkal ci tool yi nekkal ni ci waar wi di am taxawaay boo xamante ni siin kenn ku ci ne ci ñun mënu ko ndax jotam may ko ko temps may ko ko waaye loolu lépp doo ko boolee def ci ñu ko defal kon sëñ Moussa noonu moom nit la koo xam alxuraan rek ko nekk foo ko gisee muy dem jàppal ne alxuraan bi dox la nekk jëmm joo xam ni nit ku baax ku bëgg lu baax ñi mm-hmm. koo xam ne si suñu yàlla rek moo ko ñor mm-hmm. suñ ji li maxtaar mm-hmm. di suñu rakk di suñu xarit di bég di wax ne lii moom dara taxul ñu def ko mooy dama am fan yii damay liir benn trasu arab mu neex ma lool mu waa ji wax ni salaasu tijaaraatin laysa maa xasaara mu ne am na ñetti commerce yoo xam amul pertement mm-hmm. ñu ne ko ban la mu ni mulaasama tilaawat alquran tax ko jàng alquran mm-hmm. beneen bi ci des mooy almuxaafasatu ala salaati mm-hmm. di julli waxtu juróom ba ci ëpp solo nag mooy al infaq fi sabilillahi mooy joxe ci yoon yàlla ko jàng alquran yàlla wax ne ci ne lazina yatluuna aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur kon alxuraan da ko njëkk a indi ki julli ki joxe alalam ci yoonu yàlla ki jàng alxuraan ñooñu day seen dara yàlla du ko neen ëllëg kon loolu rek mooy jataay lii nag du dara loo xam ne dañ ci wane suñu yéene rek waaye suñu yéene ëpp ñu ngi koy defalee mboolem njabootu sëñ Baar gépp dale ko ci Cheikh Mamadou Moustapha ba ci nga xam ni moo gën a nekk féete ndaw ci ñu yor buntu kër doomi sëriñ daara yi mm-hmm. ñëpp lañ ko defaale mm-hmm. sëriñ Sidi Abdou Aziz moom it ñu koy sant bu baax ndax lépp luñ nekk moom ñun ñoo koy bokk nekk lépp luñ yëngatu moom ñun ñoo koy bokk nekk mm-hmm. léegi damay wax rek la ma sëñ Aziz di wax naa moom sëñ Abdoulaye mii di wax naan ko di su ko nii boo xamante ne ku mën a sonn ci nit ñi kon Lamine maa ngi sant sama doom yi fa cant gi ak ngërëm li ci loxol sëriñ Fàllu sëriñ Cheikh mi di sëriñ Xaadim Modou Baara ñële ne la waa kër sama doom yi dañ leen a daam benn kii bu ñuy tax andi moom tamit maa ngi ciy maa ngi ciy woowaale waa Sénégal képp daara alxuraan la joo xam ni suñu doom yi ñoo koy tabax ca Mbàkke Kajoor sëñ Fàllu mais mooy président daayira bi muy daara inter muy daara internat ñu koy tabaxal Cheikh Mouhamad Lamine Bara ñun nag ñooy seeni bàyyi ñoo ko waroon a def ñoom ñu wutuñu ci loolu tàmbali nañ ko bu soobee yàlla bu jokkoon naa Lamine ñi dem wax nañ ci ak euh, waajunum soose moo nekk Mbàkke Joor mhm. dañ leen jox bon vingt tonnes de ciment mhm. bu ko defee soose jox leen ko ñu tàmbale ko euh, di ñaan yàlla yàlla jàppale leen mu mhm. àgg ci jàmm ak salaam jëf nag ñaare nit sax danay def lu baax ñu naan day ngis sa wala dara mais ñu nekk moom alla si ñu soxoon ambaadam bi layli wan nahaari sirran wa bu la neexee nga nëbb ko bu la neexee nga feeñal mhm. waaye lépp ci yàlla lay delluwaat mhm. loolu rek mooy suñu jëf di ñaan yàlla li ngeen tàmbali yàlla mottali ko àggale ko ci jàmm ak salaam ci barke suñu baax bëgg nañ ci lool mhm. lii nag aw yoon la maa ngi ci woon ñëpp nag képp ku gis di sama xarit rek maa ngi lay ñaan nga jàppale ma ci daara ji na ma yelwaane daara kokki noonu laa yelwaane daara jëri ndax ndax nag aqrabu awla dëgg la jërëjëf jërëjëf am naa ndam baar sëriñ Basiiru baaraay maamam